jërë ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaara lamb yooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee mbokk yi ñu ngi fii ci open press bébé Saloum mi nga xamante ne moo war a bëreeg franc le 8 euh, le 8 mars fële ci arène nationale promoteur bi ko organisé di jamaïcain jam production mbokk yi tey bébé Saloum dugg si na ma nga noonu di dem yor na benn leket sol na dàll yu ñuul sol na ensemble bu giri lëng nag ko yoral mystique yi ma nga noonu ci biir kaa leen dugg ci biir war leen lépp loo xamante ni ambiance la ak ci open press la bokk fii ngeen koy amee ci wasaare lamb kaay Adama kaay. mandiwul làmb semaine bi doo mandi làmb semaine bi ñëppay mandi làmb samedi Ouzin production dox Angleterre bu dóor dóoraat ak majj majj bu waalo dimanche bi jamaïcain woote waat même stade arène nationale ndeysaan boolewaat ñaari ndaanaan bébé jiili fay la borom baax li nga yokk bari sa liggéey rafet na nee nañ ku yokkul yaa wàññi yéen du ngeen national yéen international ngeen fu ne lañ leen di suivre ci entournement bi yàlla na leen yàlla defal cat. tey ñu ñëw fekk la ci open press ki nga xamante ni mooy Bébé Saloum seen diggante yéen ñaar lan la. sama xarit la sama waay sama lépp la mu nekk nit ku baax nit ku nit ku nit ku sama gannaaw sama lépp la di ma conseil di ma def lépp kon boo amee open press wax ma ko wax ma leen lu ñëw teew sama sama xarit la sama lépp euh, moom Mbaye Gueye Faye maa ngi Mbaye Gueye Faye ñooy ànd moom ak Mbaye Gueye Faye ñoo bokk ikiri sama waay sama lépp la looloo tax ma ñëw fi waaw waaw. keroog nga bëre fee ca Bargny. nul. sa diggante kéwal lan la. waaw gars yi nii lañ ko tuddee mais kéwal dama ko daan ñëpp teg nañ seen bët est ce que li wax dama ko daan lu ñu yoon may nag ñu ngi koy def parce que kéwal dañoo bëre ma kal ko ñu dem si biir si ñu dem daanu ci mu dem daanu ci saaku yi. arbitre dañoo gërëmoon nag arbitre yi fi ñëw amuñu compétence amuñu dara loolu dañ leen koy jéggal. gis nga li ma mais Keweul daan naa ko fu mu toll nii ñu ngi xaar li ñu jox ñu suñu victoire. kon mën naa gis na ci bopp. non yëg naa ko bu baax parce que Keweul day bëri ba ci yàgg mu mu yàbbi protestant bi public te kenn du ko jox avertissement ñu génn ci ginnaaw saako yi mu dóor ma kenn du ko jox avertissement mais nañ xool loolu ba pare ma daan ko ñeent juróomi arbitre mënu ñoo gis site boobu. loolu beneen affaire dinaa fa ñëw ñu toog waxtaan gën ko yàq. billaahi jiili bëgg naa ci yow. seen boobu la nga bàyyi oh, bu lox lool <laughs> da nga bàyyi bàyyi ci loo nekk waaye sant Serigne Saliou bu baax préparé waaye yàlla yàlla nangu waaye santaat Serigne Saliou bu baax baax baax ma ñëw open press euh, ki nga xamante ne mooy Bébé Saloum fekk la fi ban écurie nga nekk ak lan ban relation nga am ak moom waaw école de lutte Papa Guène laa nekk dafa lay dee incha allah waaye Bébé Saloum suñu garaan moom suñu garaan la woon comprendre ñun moom muy bëre ñu leen doon ko si bëre di xeetu xuloon ngir moom c'est normal tamit xam nga su ba su def open press c'est normal ñu teewal ko quoi loolu la ànd ak suñu grand marre yéen. ki muy bëreel. waa Franc lay bëreel de. xat la def. non garaawul c'est normal ñu ne Franc dafa weex si kanam waaye képp ko xam Bébé Saloum xam ne daanaan la champion lamba tëre di rek lamba waxul dëgg lan moo ko mën a may combat bi mu am ci ndam. fulla ak ak jom xam li mu liggéey xam li mu entraîné bañ li Franc liggéey mu bañ ko concerné quoi moom li am mu concerné ko. avantage am mooy lan Bébé wala xeex. lépp. Bébé Saloum mun na bëre mun na xeex comprendre nga mun na bëre mun na xeex li li ko war na ko ñoo def bu mu li Franc am bu ko lijjanti moom li am na ko lijjanti quoi. yee loolu laa gëm. kaay. naka yi tey. bëggee de gaa de wala de ci diggante bi de. non non yokku ma yok mo yokku ma. macha allah ñu rek. am mbay guy rek tax nga commencé yokku doole. non non pas doole ñun benn instant moom loolu koo xam daa am lu ñuy xaar rek. waaw daa am lu ñu xaar te ci làmb lañ bokk te daa am lu ñu bëgg a dabu te incha allah rabi am nañ si yàqin bu wér ne dañ si ñëw incha allah ñun wax ju bëri waruñu média boo bëri waxuñu waruñu day nekk ñu ruqul liggéey rek ki xawle nag dañ si doom day loolu laa bëggoon sa diggante ak Bébé Saloum mu ñëw fii fekk la waaw loolu ma fi indi mais bul lool loolu média du ma gis parce que talu ma wax aw ma lu may wax ak nit ñi damaa toll si liggéey mais ki xewle tey sama nit la sama gaañ la bokk nañ ñëw man moom sept ans kooku la. boo ko ñëwee man moom sept ans dund dund lañ lu nekk lamb boole wuñu ko yàgg na toog na si télé bi fu ne mu koy wax affaire nu ko mais man c'est la foi fois moom occasion di ko expliquer nit la sama mbokk la ñoo bokk Saalum mais yàlla dogal tamit ñu nekkandoo defandoo ami d'enfant lu bëree bëri ba lamb ñëw benn saa moom lool koo xam nga waaw xam yu bëri yu nekk si moom waaw muy bëri nag benn boy boo xam ne dañ koy nangul champion muy wax sa mbaaxu waaye du wàññi sa mbaax dara Bébé Saloum champion la Franc champion la mais Franc dafa compétitif ay preuve mais yaakaar bu dee man esprit bi may doxee la Bébé Saloum li muy dégg war na ko gën a tax mu gën a rey boppam gën a ñaax boppam parce que am na wax yoo xam ne daf laa war a mën a yokk jom ngay bëreeg nit ñu ne moo wala moo la gën a compétir wala moo gën a nekk xale war nga mën liggéey loo xamante ne benn saa nii xam nga bu jour waa di nga bett ñu bari di ko ñaanal ndam nag yàlla mu yor ndam. mais ñu ko ñaanal nan la war a mën a bëree. combat bi ba génn ci kaw Franc day bëre wala day xeex. bu mu bàyyi mëninam man bu mu bàyyi mëninam laa koy wax nit doo bàyyi sa mënin di daan def di am ndam def ko mooy si serré ci entraînement si récupération foo war dem nga dem fa ba le jour ji nga ànd ak ñi nga war a àndal déglu say nit parce que loolu liggéeylu mënoo ñëw ba jour ba nga bëgg a def leneen li nga compétir bu jour boobu la arbitre sifflé loolu ngay tari te naa ci yaakaar ne carrément kenn waru ko conseil ci làmb parce que ñam na bu neex ñam na bu naqari te fi mu toll ci làmb war na a xam boppam moom li koy xaar ñun dañ koy gunge rek fee la ñuy yem mais suñu xol ak suñu yéene mooy yàlla may ko ndam nu mu ko amee baax na. Pape Mayel mooy kilifa bu mag bi mais man bu ndaw bi mooy sawa kilifa loolu allo. Pape Mayel bu ndaw yi kër ga. maa ngi ci jàmm. mu ci jàmm mais Pape Mayel bu mag may ñu jàmmoo. Ah. non may ñu jàmm. chaque deux heures temps muy wootee nu mu def nangam ak nangam appel vidéo lépp moo loolu day dem ba ne benn instant ne ma yaay sama doom mais instant bi perte nga ma kee mooy sama cët waaw foofu nga far yaa ma nga ram moo loolu mais bëgg naa la ngayen jaajëf mbër ay ca kaay ay waay te ñu wasaare lamb jee waaw wasaare lamb ji waaw aa di leeb naan mberere nu ñaabil la dina xamul fa muy demee yaay laale baaxu góor tey ji ñu wasaare lamb ji mberere nu ñaabil la dina xamul fa muy demee yaay laale maa lay ziar. waaw maa ngi doon baax. dangay tey sant yàlla bu baax a baax. maa ngi am jàmm waaw maa ngi am jàmm. tey ma ñëw la ci la. waaw Bébé Saloum Baye Fall la vraiment te comprendre na quoi mooy lamb la rek après bu jeexee jeex na xam nga bu weesoo loolu fii dama fi jaaroon quoi sama écrit la woon xam nga li ma lay sax boobu commencé gu ma sax bëri nekk ci lamb jàng naa fi affaire yu bari xam bi ma fi ñëwaatee kon damay damay fier quoi waaw damay kontaan trop Bébé nag sama gaañ la waaw suñu gaañ la sax laay wax képp kuy mbër rek laa sa gaañ la parce que Baye la. tey fi mu toll nii ci làmb muy bëre xale boo xamante ne dañ ne grand contre petit la xale bi day yéeg am na doole. mën na bëre te mu ngi def ay compétition yu am solo muy Franc diggante ak moom ñoom ñaar ci bëre bi la ban conseil nga koy jox nan la ci mën a bëree ba génn ci combat waa waaw lamb reenu ñambi la kenn xamul fu muy demee pour man bébé tollootul sax fu ñu ko war a ci lamb ni ko lii nga war a def parce que takkusaan bu nekk bëre na ko nag bu dee dëgg mooy dëgg xam nga li ma lay sa moom xam na combat bi fan la ko war a yóbbu bu fi bu ci jógee xam na fan loxo ko war a yóbbu. bu ci jógee tamit xam na fan la ko war a delloo kon bal bi ci kanamam la nekk moom voilà. ci làmb foo toll. waaw maa ngi ci kaw ma. Ah. promoteur ñu ngi lay proposé. waaw ñu ngi may proposé adversaire mais temps yi nag xam nga damaa xawoon na loolu tuuti parce que ma duggoon nekk quoi. xam nga soxna si daa am tuut tànk bébé Aïcha maa ngi koy siyaar sax bu baax a baax ah di siyaarale soxna si. waaw dama duggoon laa moo tax ma ne dama duggoon mais génn naa instant bi maa ngi ci ko maa ngi samay entraînement waaw maa ngi samay ginnaaw booy nag quoi sama écrit xam nga muy xam sa cosaan maa ngi seen ginnaaw di pousse booy yi xam nga di ñaanal soq ak bébé ëmma ak bébé ëmma seen combat bi ñu jëm yàlla leen suñu borom defal ndam ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam combat bu may dégg est-ce que combat boobu waxtaan nañ ceeg yow wala parce que mbër mi dégg naa ñu ne mbër mi nee na yow la bëgg muy booy Ada Fass. Ada Fass man mbër laa damay bëre. làmb mooy suma métier. Ada Fass ak Ada Kaolack ak yaawu jaal ak Yékini ak Bombardier laa yemale déggoo ma de damay bëree làmb mooy suma métier damay bëree. promoteur bu la seet si di nga bëree Ada Fass ak ku mën a doon déggoo ma de même bu dul Ada Fass. lañ la proposé. ma proposé. waaw mais ci ñoom la des man du ma yeexal làmb làmb warul yéex tàkkusaan la rek dañ koy bëre mu jeex ku nekk dem ñibbi. jaajëf Naaru Sokaaf jaajëfatee. Naaru Sokaaf la le grand champion. Kaay Kaay maa ngi siyaar ñaari grand yi Pape Sarr a ngi nii monument wu Pikine. Armé Marley maa lay siyaar. waaye siyaar naa la bu baax a baax mam sant nan bu wër kay. ma ñëw fekk la ci open press bébé Saloum seen diggante yéen ñaar lal la. waaw. ñun ñëpp benn lan te ñun ñoo bokk fii te li ñu bokk mënuñu ko séddoo moo tax ku si xewle sa morom day def teew waaw man fii laa njëkk a taxee sër écurie bii nii ndax sama turandoo moo nekk na le keesoon laa fay marle 1 kon fii laa bokk waaw di ñaan yàlla suñu borom bi may ko ndam xam ndam lu seddu guy daal. Mhm. jaajëf jaajëfati Pape Sarr maa lay ziar grand. maa ngi dellu ziar. naka yi tey sant yàlla. monument bi ci loo maa ngi sant yàlla bu wër. tey ñu fekk la open press Bébé Saloum. Caaray ak Pikine. da mus ngeen laale ndax mus naa bëreeg Ama Balde. tey seen diggante yéen ñaar lan la. Aliou Seras ak sama yaay Bébé Saloum ak Aliou Seras ñoo bokk benn lal sama yaay dëkk fii ñu am fii kër ba pare ma ñëw taxawaayu. jamaïcain promoteur bi tëgg combat bi muy suma xarit ma ñëw taxaw ko comme frère yaa ngi may dëgg di ko ñaanal nag Bébé Saloum di ko ñaanal ndam yàlla na ko suñu borom may ndam lu sedd guy parce que tey dafa mel ni Aliou suma rakk tey moo organisé lii parce ku xam Aliou Seras xam Bébé Saloum ñoo bokkoon même écrit ba ni mu demee ci euh, bàcci Seras euh, dafa mel ni Pikine laa nekk parce que man fii laa dëkk. sama yaay ngi bii di ma dégg dégg maa ngi indaale Cheikh bu Serigne Babacar doomu pikin la ñu ñëpp benn la ñu Bébé Saloum chaque jour mu ngi Pikine xam nga si promoteur boobu chaque jour mu ngi fa su rakk la ma yar ko muy ku ku ma jox cër mu ngi nii du ko ñaanal suñu borom may ko ndam dégg nga. waaw gannaaw barki Serigne Baba la. baax la dama koy ñaanal ndam barki Serigne Baba yàlla na yàlla fay sa xol da ngaa yàlla ñaanal ndam jërëjëf gannaaw kontaan naa ci yow. Maja mais xaw ma lu muy ndural. Bébé Saloum fi toll nii gaynde rek la may jox gaynde biir tey Bébé Saloum fan la toll. waaw ginnaaw buñ. Serigne Abdoul Karim Mbacke naar moom awa suñu naar bu jënd ni yàlla fi yàgg te naan ons billah bismillah inna waliyu yàlla jërëjëfe borom Touba jaraw la kenn maam Seram Fall maa ngi nuyu kulluhum tiis wi gaa yi tiit ni dugg na fi yàlla na ko sama borom wàññi moom mi am kattan e, yàlla na yàlla wàññi njàqare yëpp def ci gaal gi jàmm ndax Sénégal kat mooy sunu gaal yàlla ñu sama borom boole wattu defal ñu tawféex ak taysiir ci doole mag ñu baax ñu fi ne ci barkeb Sëñ Bamba waaw. Bébé Saloum fa mu tolloon ci làmb Bébé Saloum kenn dootu ko présenté ci làmb mën nañ wax ne promoteur yi mag yi fi nekkoon yëpp te jamono ji ñu bari gisatuñ leen euh, Bébé Saloum jaar na ci ay loxoom. Franc ñëw tey ngeen war a daje combat bi fan la toll ci yow ak ki nga xamante ni moom mooy adversaire bi. waaw adversaire bi day mbëri la ko mbër yi rek tey suma xol du fa sedd nar ma gis gis sama nawle yëpp gis maam Balla bi nga xam ne moom njëkk a tagal seer gis ay naaru sogaas ay double Tyson ay cité bu Kaolack ay armée ay marle xam nga ay général bu Malika ay guy quatre-vingt-quinze ñëpp ñëwal ma ay xam nga ay uña ay kona ñoom ñëpp ñu ñëwal ma ay Alioune Seye 2 ñëpp ñëw nii xam nga loolu daw sama yaram suma ñoom rakk dara ma ñoom Pape Thiam ñoom doomu jàmbur waa Malika Diop ñoom Jams xam nga ñoom sëñ Naar ñoom Mbaye Sène ay ñoom Baye Baaxe ñoom ñëpp jóg loolu daw sama yaram loolu vraiment waaw bis daal am na fu mu fu ma toll ndax daw na suma yaram loolu vraiment

ñu jàpp ni loolu rek waaw. Bébé Saloum tukkoon dem États-Unis da nga jàng jàngoon xeex wala da nga am leneen loo jàng leneen lu bokk suñu suñu bëri. waaw demoon naa fo ngir benn projet daal waaw comme projet laa fo demoon nag jarul yaatal làmb ji daal laa tal fi mu toll nii di ñaan dimanche yàlla may Franc jàmm may ko ay mbokkam may ko ñi koy ñaanal may ko ñi may ñaanal may ko samay mbokk ñu bëree yàlla may ma ndam. ma daan ko loolu rek laa bëgg. dañoo xamut ku bëre 22 combat bi mooy 23 ñu naan relance ma bëre ñu gën a riis faran. relance boo ko déggee mën nañ wax ne sa place nekkul woon fii bu doon démb doo bëreeg samay moroom ma ragal te ma dégg grand contre petit ndaxam ñamoon naa ko sax nag defoon naa ko fi defoon ne ko fi parce que booy fi danger yëpp maa leen jël mbër yi dama ma daan mbër yi dem laa daan waaw kon booy franc yéen koo teg fenn fii Euh, di toog ci der bi di jëw yàpp man sañu ma ko chaque jour man la nit du toog ci der di jëw yàpp suñ borom moom moom suba li ñuy def bu antoo moom la neex sama kàddu gi bu daanoo sans borom la soob kon nañ bàyyi suñ borom ca ndogalam lay am yàlla def na ko muy ndam ta man la ko jox laa gëm te yàlla na ko yàlla def ci doole Seydina Mohamed loolu rek laa gëm li nit ñi wax amul solo parce que nag nit ñi moom li ñu gisee rek la ñuy waxee man dama naan aw ma noonu noo comprendre laa am maa ngi wu ñaari ñaari excuse waa àdduna xamee wuñ ma kàddu gu dëgër te keroog meeroon naa ba waxee noo xam ne erreur de communication la suma diggante ak suma rakk jamaïcain ma koy ko jégalu di ko jégalu waa àdduna yëpp waaw di jégalu ñëpp nag ci loolu noonu euh, di jégalu Babacar mi yaakaaroon ne bi ma micro microcentral moom laay waxal maa ngi koy jégalu taxoo may wax euh, ki tax may wax bis bu ñu waree wax dinañ xam ne moom moo tax may wax waaw taxoo may wax grand frère yow nit ku baax nga. jamaïcain suma rakk nga erreur communication la woon. trouvé nañ terrain d'entente ok li des mooy waa àdduna comme xamee woo leen ma kàddu gu dëgër maa leen di jéggalu loolu noonu ngeen jotoon dégg ci YouTube bi loolu la wax. combat bi amul benn risque pour Bébé Saloum. Sénégal ñu fi dàq bëri ci laa bokk dara du risque ci man beneen bi may Baye Fall pire nag aw ma lu may tiit aw ma lu may ragal one hand su ma ko doonee defe naa ne maa mën waa Sénégal wan hand képp loolu laa gëm man gëm-gëm man su ma du ma xare ji di gëm leneen négatif non positif rek li ma gëm daal mooy dimanche bu dinaa def li ma xam pour yàlla may ma ndam te bu fekkee jom ak ngoro koy maye du ma ko ñàkk barke Baye Karim Mbacke Fallilou. waa Kaolack nag aw ma seen fay ndax gis nga Malick dafa ñëw takk gaynde ñoom Baye Ndaw ñoom Siteu ñoom Tyson bu Kaolack Tyson euh, ñëpp ñëw double Tyson ñoom ñëpp ñëw waa Kaolack te gis nga suba dañuy takk ay biis ñëw ñeneen yeneen supporters yi kon ñooñu aw seen fay waa Thiaroye mention spéciale waa Malika pare gis nga booy sama ginnaaw yëpp waa Malika lañ keroog ku ci nekk ne yow nga wax ne ko tegal sa pour ñu xeex combat bi première mi-temps waaw ay mbokkam duñ ko ko digal bi ma xëyee laaj sama ménagère ndax signé nañ ko dañu ma déedéet ma waa ko ne ko sawru mun ma naa man ko woo leen ni leen buñ bëggee ñu simple amul ja amul dóorante amul dóorante buñ bëggee ñoom ñu simple amul dóorante damaa bëgg woon waa àdduna ni leen moomuñ gisé bay gisé ku xamul di nga fanaan am déet bul àtte ñaar champion la ci mbapat moo tax ci mbapat ban spectacle la fi daan ci mbapat yan qualité nit la daan yu tolloog man taay taay bi ma am xeetu bëre yi ma fi def exploit ma fi def ndax Franc bëree gum naa ku mel noon bu ngeen di wax te yàlla tax di leen sóoraale loolu mais Sénégal ay diggante dund ak dee fàtte xaj foofu ma laa démb ak tey. mais dañuy gis ni a a a gars yi amul solo waaye maa ngi ñaan yàlla ndam man mi compétirul maa ngi ñaan yàlla ndam. waaw. am naa ko léegi mu nekk suma rakk jamaïcain erreur de communication la woon saye jeex na erreur de communication la woon davant public laa waxee ni maa ngi koy jéggal waa àdduna ndax am na ñoo xam ne nu leen nee ndax am na ñett ñu ko sopp am benn kenn ku ma sopp su ma meree ñu kooku mer la ma moom bu meree ñooñu mer la ko moo tax loolu xajul ci Sénégal ñu ni neen la te ñoo bokk Saalum man ak moom waaw erreur la woon lijjanti nañ ko ah erreur de communication la rek. beneen question ñetti top 5 laa fa am boo bëggee ma limal la ko. Xaadim Gadiaga top 5 laa ko yóbbu. Birahim de top 5 laa ko yóbbu. Garga Mbossé top 5 laa ko yóbbu. Franc ci kattanu yàlla top 5 la jëm. ñu bi nga war a yóbbu France moo nar doy waar waaw gëm-gëm rek damaa gëm ah. tawhid laa am gëm ni dama koy daan ah, yóbbu ko top 5. ña ña def yëpp nga ko bëgg a defaat. parcelle daal dama leen a yab. teg sama chaise ci buntu entrée bi. di leen yóbbu top 5 la. waaw ñun dañoo mag. maguñu fanaan. maguñu fanaan ñun. kon yéen bu maa mag Franc kon na mag non dama ne. moom xale lañ ko mën a wax. xale lañ ko mën a bu fekkee damaa nekk mag muy sonal Sénégal na ma coronavirus bi jël noppal waa Sénégal. bu dee damaa nekk mag bu tax ñu naan Franc Franc sa mag Franc dama ko mën a magee nit Franc nit ak tofam laa koy magee rek su dee ko lañ te beneen bi mooy. góor boo ko da boo ko ñamul bu ko yab de. maaga lañ la. dañu gis ne bu mosoo bëri arène nationale te dañu wax ne arène nationale dafa bëri suuf ah man de ci suuf laa dëkk géej laa yeewoo Balika. ca beeñ balaa yeewoo ragaluma lool de en tout cas bu leen neexee ñu toxal làmb ji arène nationale yóbbu ko biir parcelle kër gu leen neex ñu soufflé. kër Mawla. nii may waxee ak yow na ma détermination bi ma gis ak kóolute bi ma gis assurance bi ma gis si bébé Saloum man loolu daf ma yéem. musul denc man lii rek moom laay deyaale ndax nag du yàgg dara ma bàyyi làmb maa leen ko dee tey. du yàgg dara. ñaata at ñaata defal nànk li mu wax dafa am solo. jarut may lim at yi waaye xam naa ni Baye Karim Mbacke Fallou laay jël seere ni du yàgg dara ma bàyyi làmb. ci làmb ji laa bëggoon a bàyyi làmb ñu tere ma ñu ni ma bul wax loolu. kon naa leen ko junj bu may bàyyi bu mu leen bet lan moo tax bëgg a bàyyi. lambi Sénégal non Sénégal dama cee gis lu ma xamut. ku ma am nday ku ma amul nday bi moom a moo ma métti beneen bi mooy dañ ñoo nawlawul ñun mbëri tambaam gàtt na lool waaye ci jur gi la promoteur bi bu mbër mi amut du doon promoteur ménager bi bu mbër mi amul du doon ménager yéen ñii li ngeen di def bu ma waxul loon du ngeen ko wane. lan moo tax CNG lan moo tax mu bëgg ñoo jël moom ñu noot ñu takk ñu li ñuy def gileem di ñu yës ñun ay nawleem lañ ñun waa CNG seen i nawle lañ seeni doom lañ nañ ñuy fàttaliku. jaay perte du tey wàññi sa bénéfice bu saison jeexee ñi ñuy woon nañ ñu ci boole na ndoog ñun noccee ndoog ñun ndax bu làmb riiree mbër ko waral. bàyyi nañ daa bàyyi mbëriñ def baadoola comme dañ maa nar a def baadoola na te kenn gënu ma ma leen seen làmb ji te doon buur ni ñëpp. li may tàggoo mooy naaru maam aw fa yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdul Karim Mbacke naar bu ca Ndindi na fi yàgg te wér sëriñ Sidi Mbacke alxuraan yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér borom jàmm gën. yàlla na fi yàgg te wér sëñ Basirou Kane maa ngi koy ziar Baye Fall ca ca Fatick maa ngi koy ziar sëriñ Saliou Mbour sëriñ Saliou Jaxaay maa ngi leen di nuyu di nuyu autorité yëpp nag rawatina suma mag Baara suma kilifa suma xarit docteur Macoumba Diouf maire de Latmingué defaral nu ma ay tiset jàpp ci yaa ngi dégg madame Ndiaye maa ngi koy jaar Yoro Diop booy Diop Yoro daa bàyyi ay soxnaam ànd ak man fu mu dugg mu dugg fa fu mu tëdd mu tëdd fa xaalisam xelam pexeem dara fekkewu ko dama ko yërëm sax daa jeex tàkk Yoro ma koy ziar bu baax sama fans club bi nekk Malika ñu ngi waaj bi nekk Thiaré seen fay. waaw maa ngi nuyu ñëpp di woo ñëpp nañ ñëw arène nationale def lañ miinoon euh, Serigne Basirou ca Thiès maa ngi koy ziar na ñëpp teel a ñëw ma def liñ miin ci man suul tànk yi raaj ci ñeme jam-jam yi. na ngeen yoram jeex. am na question mu lancé mu ne li ngay communiqué est-ce ko lu mu mës wax jéem na koo jëf. Bébé Saloum amul tànk ginnaaw combat man a France sama tànk du fekki morom ba. sa combat daf may fàttali sa contre ak Garga Mbossé. bi may daan Garga moo gën a dangereux Franc da dama ko duma yóbbu ko top 5. li ma la mën a xamal ba xamal ko daal mooy làmb juy neex lay doon. lu indi nag bëgg na. damay kenn di promoteur boo xamante ne nii xam naa ne international ci ñëpp ñu yi ñu dem stade tey Bébé mu ngi waajal fii moom ko ñam ñu ngi mobiliser bu baax nag Jamaïcain xale la ndeysaan di ko ñaanal jàmm ak tawféex yàlla defal ko defal ko jàmm bu baax